waaye di am tiis guñ leen bëgg a yëgal muy sunu waajur wi nga xamante ni mooy Alaaji Balla Gaye numéro un mu mag mi nga xam ne tey jii mooy turandoo Balla Gaye numéro deux doonoon grand champion ci wàllu làmb nga xam ne def na lu ne ci làmb ci àdduna def na lu ne ci làmb ci Afrique def na lu ne ci làmb rawatina fii ci suñu réew mii di Sénégal suñu borom ci ay dogalam yu tedd yooyee nga xamante ni waajal na ko démb tey door dikk macha allah jël na bakkanam tey jii ci suba ji bi mu ko defee ba noppi ñu doon waaj naan fi mu toll nii daanaka bu ñu julee tisbaar wala takkusaan ci lañ koy fas yéene denc ji yoof waaye mu mel ni amaat nañu ndigal lu jóge ci xalif général des Layènes di bàyyi Abdoulaye Thiaw Laye ñu ñaan yàlla sama borom mu saxal ko fi te wéral ko. di ko ndokkeel moom it gannaaw tiis yi nga xam ne tege woon na ci kawam ci jamono yi weesu di ñetti bant yu ci moom yu fi génnoon àdduna waaye tey jii taalibeem bi ñëw fekk si leen ba tax na ci jamono jii ñuy waxee yéen yéen a ngi nii di gis image yi nii mu demee nii ñu ngi nii gannaaw bi sëriñ bi joxe ndigal ñu ngi nii di koy jële ci jumaa yi mawlidu zaman ji nekk fii ci Pikine Aïnoumane 3 ci mbedd koñ bi mu dëkkoon di ko yóbbu foofee nga xamante ni mooy yoof ngir ki nga xam ne mooy Baye Abdoulaye Thiaw laay fas yéene ko taxaw waajal ko ba takkusaan mu jébbal ko boromam kon mbokk jullit yi mbokk taalibe yi askanu Sénégal rawatina askanu làmb ñoo ko bokk gisandoo ci image yi nii Alaaji Balla Gaye numéro un génn na àdduna tey ci suba gi ñu ngi nii di ko yóbbu yoof ngir jox ji ko xalif général ba ngir mu waajalal ko boppam ngir mën ko jébbal suñu borom subhanahu wa taala ñuy ñaan rek suñu borom ci kàttanam ak mbaaxam ak yërmandeem yàlla na ko jéggal mbooleem ay rëq-rëqam jéggal ko mbooleem matadik doomu aadama te yërëm ko te tabbal ko ci àjjana firdawsi yi macha allah rabbi di jégaluwaat bu baax a baax kàddu yi waaye di xam ne lu mënul a ñàkk faaw ala kulli alin mu am kon fan ci tàmbalee ñoo ngi koy ñoo ngi koy jaale. doomam yi nga xam ni suñu wëllëre la suñu xarit la waaye itam suñu rakk la ñu gën ko xam ci Youssou Ndour waaye mbooleem ñoo xamante ne rek bokk nañ ci njaboot gi ku ci mel ni Balla Gaye 1 yéen koy Balla Gaye 2 yéen a ngi koy gis nii ci image yi mu taxaw ci taxaw bu am solo depuis ba góor gi te la tawatee ba léegi waaye ku ci mel ni rakkam ja moom it Sa Thiès ñoo ngi koy gis ak mbooleem axlu làmb rek kenn desul ñëpp a ngi fi macha allah rabi kon mbokku jullit yi mbokku taalibe yi euh, xibaar baa ngoogu kon ñun ñëpp ñu bokk àndandoo maasandoo ci waaja waajalandi ko dem yoof ànd xalif général Baye Ablaye Thiaw Laye lam ca nam ak lam ca yéene ak lam ca mbét ak bëgg ko ci itam ñu fas yéene tënku ci ndigal yi ñun ñëpp rek daal di fas yéene jëfe ndigal loolu incha allahu rabi taala wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.